وسلم آه. سل صلاة يا خريب آه. على نبيك الحبيب مؤمن انت به صلى الله عليه وسلم خير بعيد وقريب سيد كل أمم بالله صل وسلم يا عظيم ala habibika alkarim mhm. sayidina ayni naim wa alihi wa sallimi salli ala salli ala xayri albashar waaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahmad nuqbati almudar mhm. wa sahbi axyaari zumar wa alihi wa ammimi nabi salilaahi sarmada ala nabi ahmada wa ali dhawil uda wa sahbihi wa addimi salli ala abil batul safiina xayri rasul بالله ولي ذوي القبول وسحبي وازمي صلى الله على المقرب احمدنا في الكرب ذي القلق المهذب حبيبك المفقم بالله صل على نافي الضلال محمد بدر الكمال wa sahbi saadati rijal wa alihi wa karami salli ala muwaqari حبيبك المبجل أحمدنا في الكرب ونورك المطلسم صل على مقرب حبيبك المطهر أحمد خير الوذري ونورك المتلسم مع عبد العزيز مالك صلي على بدر البدور أحمد منبع الخيور منقذنا من السرور وقلق الوعمم صلي على مزمني أحمد خير المرسلين حبيبك المبجل وآله وسلم صل على من قد سرى واو موم ينتبي صلى الله عليه وسلم من مكة الأم الخرى بالله إليك يا رب الورى وآله وسلم sallallahu alayhi wa sallam salli ala salli ala man qad sara est-ce que aha moom sunu waaji ahmada aha salli ala man qad sara mhm. yonent bi min makkatil ummil xura ilayka ya rabbal wara wa alihi وسلم صلى الله عليه وسلم صل على من قد سرى سواء نجن waajaa nga madinatul munawara sayyiduna Muhammad yowmal xiyaam mooy ram bu jaam ñi billaahi ne gis nga bu yowmal xiyaamee bu ñëpp tiitee lépp ni dégg lépp ni regg gars dañuy def dañuy Mm-hmm. di wër yonent yi di wër aqtaab yi di wër nujabaa yi mm-hmm. waaye gis nga nee na gis nga su boobaa mm-hmm. nee na su boobaa ku ñu dem ci moom Oustaz Ahmed Dame waaw ku ñu dem ci moom danaan leen man tey taluma leen sama bopp laatal nee na su boobaa ku ñuy gindi jàllale ñu mooy sayiduna muhammad ana ñu sopp sayiduna muhammad sallallahu salli ala man qad raa min makkatil ummil xuraa billaahi ilayka yaa rabbal waraali wasallimi ahlu sama qadra qabu min malakin wa bajjalu wal anbiya wa azimu akrim bi hada alqaari mustafa min kulli kulli wasfin hamidin ala abala qala tasdiri raja ulbara ya yawma mujda hamidin kulli أيوة حميدنا على أبعالا على تفضيل الرجاء البراء يا إمام سودان مصطفى من كل وصف حميدنا على أبعالا تفضيل الرجاء البراء يا إمام سيد العالي مصطفى من كل وصف أستاذ أحمد دام ميدين على أفعال سنو واجدين راجع البراء يا إمام زداه مصطفى وصليا يا إله وجزيا أبدا أبدا عنا محمد مدنا المختار في القي محمد البشير وصلي يا إله الحق وجزيا واو أبدا أبدا عنا محمدا صلى الله عليه وسلم jërëjëf tabaarakallaahu maam Ousmane tabaarakallaahu ci tabaarakallaahu jàngin mu neex mi ñoo ngi am mbégte lool tabaarakallaahu di kontaan di bég di la ñaanal yàlla jàmm ñaan yàlla yàlla defar say mbir ci jërëjëf Seydina Muhammad mm. gis nga nag tabaarakallaahu waa ngi noonu daan neex a ke ca madinatul munawara moom sayyiduna Muhammad yal na yàlla roofaat sunu xol yi bëgglu ñu rasulullahi yal na yàlla jëlaat sunu jëmb yi jàmmat ko ci bëgg sayyiduna Muhammad ndax ñu yëg ne mbir yëpp day defaroo ci bëgg rasulullahi bëgg ko waaw xabato yëpp noonu maanaam bëgg jool màkk ci boppam dafa am ay mbir yoo xam ne moom la ci yàlla ràngal waam nun ma Mansour nag nee na. wa rahmatul. liman kaana Mame Mansour def nag xamoon naa ñetti place yoo xam ne ci lañ mën a xamee njool màkk ñetti place ma dem ba ñetti place yi gisatuma ko ñett bërëb laa xamoon yu ñu mën a xam njool màkka ma dem ba ci suma bërëb bi maa ngi laaj nag ban bërëb laa mën a xamee njool màkka waaye dem naa nag ba ila salasil asafiya nekk daal ñetti wasa ci des muy ñetti ribina ci lañ mën a naanee ndox yu ñu mën a dundee rasulullahi Mamour Sow dana ñetti ribina yi moom laa lay jàngal mahabbatuhu yum nan nekk pour nga bëgg rasulullahi da ngay jàng yaay ya jàng miim ya jàng nuunu ya mu ne mahabbatuhu yum nun bëgg njool màkk dëgg-dëgg yum nun barke waam noonu nee na bëgg sayyiduna Muhammad mooy assurance sécurité bi ci gën mooy bëgg rasulullah wa rahmatun nee na bëgg njool màkk yërmande la wa taksa min al anwaari man kaana aaliya déggal bàyyi xalifa bi nee na alaaji Mansour boo demee nag ba rafle bëgg ay leer ñu wodd la ay leer nee na bëggal njool màkk bu bëggee njool màkk rek ñu wodd la ay leer kon fa la ma danow naa min sanal badri wan jalaal mooy bàyyi xalifa bi alaaji Mansour si borom ñaari kàlla yi mooy jóob rasulullah falama danaw naa min sanal badri wan jala falama danaw naa min sanal badri wan jala falama danaw naa min sanal badri wan jala alaaji Mansour bàyyi xalifa bi altine quarante quatre ans quarante ans lam la dugg rawdu rasulullah yor yor ba mu duggee rawdu rasulullah xam nga njol màkk pour nga yegg jàkkaarloog moom faaw da ngay tàppe côté wifi bi connecté wu hmm. fekk nag moom rasulullah yi moo ko dee Cheikh Tidiane mu dee ko Alaaji Malik mu dee ko ko mu yegg tàppe connecté wu ne fala la ma danoon naa min sanal badari nee na man ba ma duggee ci weer bi ci ci rawdu bi rek laa jàkkaarloog Cheikh Tidiane jàkkaarloog rasulullah yi sanan mooy Cheikh Tidiane ah. badar mooy rasulullah yi nga ne waaw ceeñeeri weeru mooy Cheikh Tidiane badar di Seydina Muhammad ma mën suur ne fa la ma danoon naa min sanal badari xoolal waxul min darixil badari wala min qabril badari wala min madifanil badari wala al qarbu arbu bi bakaani qafrin wa laysa al qurbul arbul qarbu li saa qaala xaaji mansuur mu ne falama danaw naa min sanal badari wanjala wanjala lana sitrata ah, ah, ah. billahi lamin udima biya yaa nag yaa nag fa la mbir mi nekk yaa sëñ Moustapha yëg nga ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dekkee gaa yëpp ci fu ñuy taxaw duñ taxaw suuf duñ taxaw ci asamaan yàlla mooy xool malaaka bu ñu naan yaa ne ko tàllalal sa laafu ndeyjoor bi mu tàllal ko nit ñi yéeg ci jinne yi si yàlla xool yaa ne ko waral aras juróom-ñaari yoon ma wër aras juróom-ñaari yoon nit ñi dañu ko yëg jinne yi dañu ko yëg alaaji Mansuur nee na ma dugg rawdu rasulillah jàkkaloog yaa ne comme nag yaa laa fi jël su may tagg njol màkka ar fu yaa laay jël tagg ci njol màkka ne fa la maa danaw naa lana zitru ata daala min wajdin maa bi wa bayna malikin muha musamma bi yaa minal wujdi fa la maa fa la maa danaw naa min sanal badri a bañ jàkkaarloog la ma jàkkatu adatu illahi jàkkatu adatu ahmad ya ñu ne ko koo gis mu rasulun lana sadratana lam yuddima na ba ma jàkkaarloog rawdu rasulillahi la wuññeeku pavillon bi ma jàkkaarloog njol makka jàkkaarloog saydul kaw nee ni wasaqalee ni ñu ne ko daal ki nga gis kay bëgg nañ nga wax ñu jëmm jeeg lu mu tudd mun a benn par benn rasulun rasulun nee na ki ma gis mooy ndawal yàlla bi amidun nee na ki ma gis sant ko te yàlla la màkk mooy kii sant yàlla ba yàlla accepté sant moom rasulullah wa muhammadun nee na yàlla wax muhammadu rasulullah nabiyun nee na moom njol màkk moom solo la sama fawqas nee na njol màkk mooy ki nga xam ne yëkkati ko na suma kayni ñaari bidéw yi gën a mooy ki yàlla moom rasulullah nee na njol màkk mooy ki nga xam ne yàlla ko jël tànnal ko jiital ko ci gaan bi mu nekk awalan nekk ku mujj waaye bu la neexee wa muntaha majdan wa faqran wa suudadan wal muntaha majdan nee na njool màkk sunu sagg bi mooy doytuwaay ci tedd nga wa faqran nee na rasulullah yi mooy doytuwaay ci puukari wa suudadan nee na njool màkk mooy doytuwaay ci sang wal murtaja eh eh, eh nee na ëllëg yowmal xiyaam nee na ëllëg yowmal xiyaam ñun ñëpp kenn lañ bokk yaakaar muy rasulullah nee na ñoom mbàkk al murtaja moom la yaakaar yow man bis bi nga xam ne yasibu nawasiya yow man yasibu bis bi gaa yëpp di tiit kenn la yaakaar mooy bàyyi Fatima ak Roqaya ak Zeynab ak Umm Kalsum mooy bàyyi Abdullahi maak Ibrahima Xaasim waaja ci madinatul munawara ki ñu Alaaji Malik toppal nag nga xam ne tey liy tem bi mooy lamaaraha bahira xaama yukrimuhum ah fii hubbihi amuhu xatraaha maaw ila faamin li an balaka busra sawa yazmi xam nga Maodo mhm. daa yéeme maam Ousmane kenn du moom alaaji Malick moo ñu toppal lépp rasulullahi bàyyiwul dara waaw njol Màkka alaaji Malick si bayit bi njëkk bind ci xilaas mooy bi do satin bi xaw satin do yet mhm. aw xaysatun yamanun mhm. zaata lawu xamru uddat fala tihimi li war mu bind ko mooy daf loon jàngal góor gi Birane Sarr xuratul absaar borom xuratul absaar di leen gàtt yi nga xam ne mooy gàtt rasulillah yi mu dem ba ci gàtt boo xam ne dafa am ñaari tuur mu def ko ñaari gàtt alaaj maag ne juum na sàmb mooy bàcc sàmbay bàcc daa am ñaari tuur rek waaye benn jëmb la alaaj maag ne bi xawshatun du'ayat aw gaytatun yamanon daata lawu xamru uddat fu la tihimi woote ne nag kon nag jot na nag ma dugg ci géew bi wan gaa yi ne ni ma xamee rasulillah gaa yi xamee wuñu ko ñool màkk sëñ Babacar ne ab sarte mu xakkimi ram yi chah mi yuridu ra kitaabuna xuratul absar sëñ Babacar ne ba borom xuratul absar fakkasuloo gag ki ko orienté mooy alaaji Malick Si za la wax za kitaabuna za bida li mufradin mudakkarin adir bi wasir tiite ñu jàng balaa xa ne ne wabil bisharati li sir fa mi batti fil qurbi wal bu'di awit tabasuti mu ne borom xuratul absar ba mu gaggee ki ko orienté mooy alaaji Malick Si alaaji Malick Si nag nag jot na ma wax gars yi ne maa gën a xam njol màkk mu ne yaa qaysal bahri lil asdafi indiya asdaf biha duratun a'la min al-jalbi alaaji naag ne aha lil asdaf indiya asdaf biha duratun a'la min al-jalbi دائما عما بسحبي صلى الله عليه وسلم يا غيث البحر للأصباب عندي أهدافر بها درة وطن أعلى من الجلال على نبي وأوليه دائما أمام صحبي ممرنا يا غيث البحر للأسباب يا أغتفر بها ضر وقت أعلى من الجاه jërëjëf li la as dafi in li ya as بها ضرا مولانا مولانا يا قيس البحري للأصداف عندي أصداف بها ضرة أعلى Malick ne yaa qaysal baxri yow miy xuus géej lil asdaafi ngir bëgg a wuti sadaf lil asdaafi ngir bëgg a xam maami njol màkk yi indi ya nekk na ci man Maodo asdaafun ay sadaf bihaa ci biir sadaf yi duratun wurusun fa duratun doomam fa boo xam ne ala moo gën a kawe minal jalami weeru feeñ ba am 14 jours alaaji Malick si toppal ñu njol màkk ne du ma leen bàyyil daraay rasulullahi alaaji maag ne fi gars yi déparé alaaji maag ne fu yi déparé du ma fa déparé alaaji maag ne damay teppaat tabaarakallaa ko jàng la leer rasulullahi bismillah njol màkk fu mu jaar ma wax la ko rasulullahi ci boppam maak yow yaag man ma lay wax njol màkk ñu ne alaaji malik si mu ne topp naa leer rasulullahi njol màkk ci boppam ba ko yàlla bindee ba pare def ko jaarle ci ay leer leer yi nag fukk la ak ñaar ñu ne ko alaaji bindal senegal dañoo mën a weerante mën a jaar na ci géeru jaar na ci xudratun jaar na ci minnatun jaar na ci adamun jaar na ci rahmatun jaar na ci saadatun jaar na ci karamatun jaar na ci manzilatun jaar na ci hidayatun jaar na ci nubawatun jaar na ci refatun jaar na ci taatun jaar na ci jaar na ci sa safaatun ñu ne Alaaji Malik Si mu ne topp naa jol màkk rasulullah kiiraay bu ne ñaata at la fam xam naa ko ñu ne kiiraay gu jiitu ñaata ñaata at la fam mu ne bu jiit fukki junni at ñaar ba sa at ak benn ba sa toog fukki junni at juróom at juróom-ñett junni at juróom-ñaari junni at juróom benn ñett ñaar benn kiraay ya jeex ñu ne Alaaji Malik mu ne génn na ci kiraay yi mu ngi dugg ay géej maa ngi ko dëdmal xam naa géej ya fukk la jaar na ci baxrul mahabba jaar na ci baxrul nadara jaar na ci baxrul hidaaya jaar na ci baxrul duut jaar na ci baxrul hikam ñu ne Alaaji Malik mu ne topp naa njol màkka ma ngay dem Abdoulaye ko jur Cheybatun Dur ka Asim Abdul Manaf Xusay Kilab Morata Kaab Naway Ghalib Fiiri Malik Nadar Kinaanati Xusaymati Mudirkati Ilyas Mudar Nizat Maat Adnaan Alaaji Malik ñëw ba si Adnaan taxaw ñu ne ko woon yaa waxoon ne yaa xaay sal baxri ne d'accord waaye rasul moo ne kësat man di jaayu suna addanaan fenn kuy lim samay maam ba jégga at naan waaye ku bëgg ma limal maam yu jigéen ji fa hunna fatimatun salma wa atikatun rubbe wa fatimatun henda lahunna chemmi wasiyatun bintu saybanin wa mawiyatun bil waawi salma wa layla abdilam talumi min hunna jandaratun la tasa atikatun wa barratun sama bintu raadi dil karami salma wa layla rababun sawdatun wa maanat wa magdadu eh abiyatu tëxtani mi ñu ne alaaji malik mu toppal ñu jol màkk wax ñu leer rasulullahi kañ la jógee ci ndigga maam abdallah dem ci ndigga maam amina alaaji malik ne xam naa ko xam naa ban quartier fàtte la xam naa bin bis la bisu altine la ñu ne ko binal mën a fee abin yowmal sina muhtaaru qad amalan waqala sëlubni abdullahi sul wasami ñu ne alaaji maal leer gi kañ la formé wu mu ne guddi aljuma la lii la xarubate àlla duru fi rajabin sumal munaadi yunaadi musmahil fahimi tanabbahu ana nawrul xatmi laylukumu qad xalla fii qiimatin min ataaril qiyami gars yi ana attiru xayral atturi wa baqiru xayral buquri wa friso sajadati takrima al qusami ñu ne alaaji maalik si bëgg nañ xam rasulillahi ñaata mois lañ ko ëmb alaaji maalik ne ñii la ñii ne huit mois ñii ne neuf mois ñii ne dix mois ci benn bayt jabal xuda suma bax woon baban xam nan bi xëyril wara muxtaari sil gadami ñu ne alaaji malik si ñaata mois moo wér mu ne neuf mois weer am na yonent bi ñëw ndokkeel ko adama tafsiran wa sisa la idris wa nuux wal wuud wal galil dimi sama sabiyu kalima laaw kilmatuhu min awali chehri fi tarti bi la tëgi mi alaaji malik ne ku tudd yonent yi si ñoon bal masalaatu doog a dem nabi wa alayhim Alaaji Malik mu ne rasul ba mu juddu li mu ñaar téeméeru jigéen avorté nen dañoo yaakaar ne ñoo ju rasulullahi mu sob yàlla mu jël leer ko jox ko amina ñu faatu ñu ne ko bindal mu ne wama tadiqun min anniswaani min athafin haram na daka min alkuhani la taymi ñu ne Alaaji Malik si mu ne topp naa rasulullahi ba mu juddoo kaaba gi ñuy aji baj baj na trois jours su jot daana ko ci ndey jot ñu ne ko bindal mu ne tadaldalat uswanatul muluki ka kaabati thalathatal ayan falam tuqmi malat mamilan maa al arkani aw sajada taasima mustawjibi taasima muhtaribi Alaaji Malik ne rasul xam naa kañ juddu waxtu njël la biddu ba mu tombak muy fequ xam naa ko ñu di ko bindal mu ne tuluhu wa tuluul musarix tarana ya saata muhtabisin min nuuril ñu ne àlaa jibaag mu ne rasul juddu na ba mu njëkkee lu mu njëkk xam naa ko ni mu màggee xam naa ko xabaabi shérina fil jimil xiyaami wa fi daalin gada mumsikul juddaani da himami wa qudratul masifi ayn wa wa mutasi mi mutasi mi alaaji maag ne neuf mois moom rasulullah yi fasax na deux mois rasulullahi ma ngay lam hababi shihrini fil jimin qiyami wa fi dalin ghadar mumsikul judrani sahimani wa qudratul masinak fi hain wa asra fi waawin wa widayn yara dha'i muttasimi ñun alaaji Maalik nag mu ne ba mu amee neuf neuf mois huit mois ngay wax neuf mois fasax na fiiha takallama fii ta in fasaxatuhu fii yaa i yarmi wa yu yii absalul jismi mu topp ñu njol màkk ni mu màggee kañ la bàyyam faatu mu wax ñu ko kañ la yaayam faatu mu wax ñu ko ki ko yar kañ la mu wax ñu ko toppal ñu njool màkk ba bàyyam maamam ci bopp muy abdu mutalib kañ la faatu alaaj maa ne ama chamani wa fatul jadida hanamin wa xaatimin wa andarwaane zir këram ñu ne ko Maodo nag bëgg nañ xam rasulillah ba mu amee 12 ans lu xew mu ne fii hubbihi amuhu qad rahamaahu ila li an balaga ay ay ila an balaga busra zawayami waaye alaaji malik waay dégg li wax fii hubbihi amhu qad raha maahu ila saamin li an balaga ay ila an balaga busra zawayami yàlla ñu yàlla fay alaaji malik si mu ni fii hubbihi rasulullahi ba mu amee 12 ans ci ay 12 ans am alaaji Malick nee na maa ngi koy jël xam naa fu mu jaar Maodo ne xat raaxa laxas na ba muy dem ku mu ànd ak alaaji Malick ne bàyyi tëxam Abu moo Maodo fan lañ doon jëm alaaji Malick ne maa ngi sama lëngër jël naa ko ilaa saamin saam lañu loon jëm Maodo ba ñuy dem saam luñ doon wuute mu ne commerce Maodo bëgg nañ xam ba xam est-ce que rasulullahi ba muy dem bi ànd ak Abu Talib am na fu muy escale moo ne aha kay escale na mu ne aha di ko jël Maodo fan la escale mu ne Madinatul Imran ci El Hadj Malick si kenn du moom ne bañ escalé am na benn buur nag koo xam ne làbbale woon lama raaw Mbaxira buur bi mu ngi tudd Mbaxira buur bi daal jàngoon na seen téere ne jamono njool màkk dina fi ki nga xam ne mooy jiitu yonent yëpp di mujj yonent dina fa jaar léegi nag buur bi dégg loolu nag moom mu ngi préparé heure bu bi gaa yi di romb moom jàng na ne dina jugee màkk te sàmm dañuy jëm heure bu ne bi gars yi di jugee màkk moom day sëppu ci balkoom di xool ba benn jour nag mu yëg ne tabaarakallaahu nag leer gaa ngi ñëw ba gars yi defee délégation waa màkk pour dem sàmm dañoo dugg ci dëkk bi rek ma madinatul imran alaaji Maalik ne bañ duggee la làbbe bi ci boppam yëg ne leer gi dugg na ci dëkk bi mu taxaw ci balkon bi gis gaa yi taxaw alaaji maa ngi ah maa ngi bàyyi xel rek la fa xew naa leen ko wax alaaji Malick labbe bi nu mu def mu ne labbe bi daa wàcc ñëw ba ci gaa yi waa màkk yépp ñu toog mu ne nag comme tey da ngeen ne escale dama leen bëgg a teral alaaji Malick si est-ce que labbe bi yàgg na leen teral mu ne déedéet lay sa yu baali fi muruuri yi mi yàgg nañoo romb mais faale wu leen waaye tey li tax mu faale leen mooy leer gi ci leer gi ci ñoon mi rasulullah moo laa ji Malick si làmb bi nu mu def mu ne def leen teral ñun ñëpp ñu ñëw ne leen kaay ma teral leen gaa yëpp dem bàyyi fa ñool màkk taxallafal badru anhum firalihim fa qaala fadoowu fa taxlifu lam yuqami ñu bàyyi fa la bàyyi bàyyi fa rasulullah dem bañ demee làmb bi xool xool gisul ñool màkk ne leen ah yéen ñii kese nga abu jëxali mu ngi fa ne ko waaw ñun kese la xanaa nag benn booy bu ñu fa bàyyi rek. Mm, dafa dof xanaa. te xamuñu ne ñool màkkaa tax ñu leen di teral. xamuñ loolu xamuñu ko. xamuñu ko. ñu ne leen dem leen ngeen jëli ko El Hadj ne am ku wax ci biir ne waaw wuutal gi ngeen ko fa wuutal lam yàqu mi jubul ñii ne jamono jooju Aboubacar ko jëli ñii ne keneen wax ji ci am bëri na waaye am na ku ko jëli bokk ko nag ànd ak moom dem na ko wuutal gi ñu la wuutal jaaduwul. ànd ak moom ñu yegg rasulullahi ak gaa yi waa ji teral leen ba ñuy ñibbi nag mu woo njol màkk woo ko ci pet di ko laaj ay question lum laaj njol màkk mu tontu ko lum ko laaj mu tontu ko lum laaj mu tontu ko mu toog yàgg nag ni ko damaa bëgg nag nga ëñ sa yére bi mu ëñ ko mu gis xaatimu nubuwwa bi fa mu fa mu kaste fa fa tamponné bi fa mu nekk mu ne neexul ba neexul nag kii mooy waaj <laughs> waajaa ngi nag woo Abu Taalib ba mu ñëw mu ne ko loo bokk ak waaj xale bi salal la mu ne ko sama doom mu ne ko juróo ko mu ne ko juróo ko ana yaayam mu ne ko yaayam faatu na mu ne ko ana baayam mu ne ko baayam faatu na mu ne ko lii rekk mën a am kii baayam faatuwul yaayam faatuwul jàngoon nen ko sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nag yëgal ne waa ji bëri nañ noonu lool te ay noonam bis li ma xam ci ñoon ci dëkk bi bu ñu ko xamee du génn dëkk bi dañ koy rey alaaji maa ngi ne buur bi nii la jëflanteeg ñoon moo doon nag toppal ñu ko fii hubbi ammuhu qad raaha maahu ila shamin li an balaka bushra saway azami heure baa ma tënk sax waaye ko doon tabarakallahu ñu développé ci incha allahu taala bii di ñëw muy zëdd incha allahu taala bu ñëwee rek day nekk thème bi ñu yaatal ko mu mu yaatu yaatu yaatu lool nag tabaarakallaahu ñu bàyyi la nag maam Ousmane nga nuyoo waat nuyu tabaarakallaahu sang yu tedd yi nga do nga nga nga dendal ñu tàggatoo nga jël benn wéy rek daane lekko insha allahu taala bisimilah nuyul tabaarakallaahu nga nuyoo ñi nga dendal ah baarakallaahu yaa oustaz Ahmad daam ñu ngi bég ci waxtaan wi ñun dañu daanoo macha allah ni nga ko développé fi nga ko jaarale ni mu doxalee ba fi nga toll nii yàlla na ko yàlla àggale. amiin incha allah te am na solo waxtaan boo ko dee waxtaan nga xool aslu ba. nga la mhm. ko fa. Mhm. macha allah te noonu nga ko doxalee. Mhm. macha allah taala yal yàlla barkeel la. amiin incha allah gën a yaat gën a yaatal sa dënn. amiin incha allah gën a yokk sa leeru xam-xam. amiin incha allah. nuyu suma frère yi Mouhamadul Moustapha. Hadj ah. Malick ak Cheikh Mat Tidiane. Ah. ñoo nekkoon ci ay yitte waaye dama leen woo rek. Ah. ñu dagg yitte yëpp ñëw. est-ce que est-ce que macha allah taala loolu tuutiwul. wallaahi wallaahi. macha allah ñu ngi bëgg ci ñoom. loolu xam ne ne ko. di bëgg ci ñuy seetaan ñëpp. di nuyu mbooleem ñuy soppe. Mm-hmm, ak mm-hmm. xarit yeeg am di jàmm yëpp mm-hmm. xanaa di leen fàttali rek sunu bis bi nga xam ne waaw waaw ci laa ci laa ci laa bëggoon ñëw li ñëw léegi eh. mooy sunu bis bi insha allahu taala la 4 la 4 novembre la 4 novembre fan la ñu koy defee fii ci Médina si fan euh, ri euh, kër Mawlana Cheikh Hadj Abdoul Aziz kër Mawlana Cheikh Hadj Abdoul Aziz Cheikh Abdoul Aziz Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh

Mm-hmm. boobu moom Oustaz Ahmed. Mm-hmm. pardonné wuñ kenn. Uh-huh. moom moom wax may ñu may ñu kenn ngànt may ñu kenn ngànt bis boobu sunu bisa <laughs> bis bi kenn lañ mayul ngànt la 4 novembre la. waaw kër. alaaji abdul aziz dabbaax insha allahu taala ci teewaayu nag maam ousmane si ak njabootu cheikh alhaaji malik gi yëpp bàyyi wuñ kenn ak sëriñ mulaay si ak sëriñ mulaay si bu sëriñ habib si ak njabootu njabootu sidi haaji malik ak njabootu sidi haaji malik gi yëpp la kaat insha allahu taala ñun ak ñoom ñoo maase jamono waaw waaw njabootu cheikh alhaaji malik gi nga xam ne dañoo maase ak ñoom jamono ñu am ak ñoom alaqat bu rafet mhm, mhm. ci mel ni cheikh seydi mouhamadul moustapha sëñ babacar si abdou mhm. barki démb rek ñoo ngi déggante maam abdul aziz xam ni moom yéene bu rëy la am ci bis bi mhm. Pape Abdou bu Serigne Maodo si mhm. Serigne Thierno si Maam Khalifa Sall mhm. Cheikh Mahamadul Haafaz ñëpp rek ku ci nekk rek fexe nañ ba dem ci yow waxtaan ak yow wax la objectif bi ak bis bi ak ni muy dox tabaarakallaahu macha allah bis baa ngi noonu ñu bàyyi ko xel baax a baax wala animation ba nag tabaarakallaahu ku ci nekk mooy Serigne Ngagne Ndiaye Serigne Ngagne Mbaye <laughs> maa ngi juum Serigne Ngagne Mbaye dama koy jaawaleeg Ngagne Ndiaye bi nga xam ne boobu ba léegi boobu ba léegi mu ngi may woo ndax daare tey nag tabaarakallaahu suñu rakk moo ay Cheikh Niang loolu waral tabaarakallaahu boobu ba léegi mu ngi mayoo yow bàyyi mooy nekk ci wàllu animation bi insha allahu taala dina neex dina neex dina yëngu lool bu daanelee nag tabaarakallaahu ci yuntu yàlla Muhammad oustaz Pape Anne ñëw tabaarakallaahu béggal ñëpp ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga baal ma nag mu nuyu sama benn wóllëre boo xam ne nuyu nuyu nuyu ñi nga bëgg nuyu démb daf ma woo defal ma teraanga bu rëy rëy rëy démb daf ma woo am ku ma booleel. waaw dama lay na ma na ma na ma Ousmane. Mhm. am ku ma woo na ma Ousmane Abdoul Aziz Samb bu Serigne Sidi Ahmed si maam Cheikh Hadj Abdoul Aziz. Mhm. sama wóolare nit ku baax. Mhm. mu ne ma am naa ku ma la booleel kooku woo ma na ma foo ne. Abdoulaye sama booleeg yow mu ne ko yow bul wax bul laaj fi ma ne. <laughs> yow waxal fi nga ne rek ma fekk la fa. Uh-huh. waaye daanaka ñu dem macha allahu taala. Uh-huh. la war ci bis bi yëpp daanaka mu def ko nañu baas bi fay nañu ko. est-ce que ko. est-ce que ya ca aju ko waay ko nuyu ko ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu mille fois. ko kooku defar na mbir bi <laughs> Abdoul Aziz. nuyu nañ la mille francs ci moom ak ñi ko bokkal yëpp. Mm, mm, mm. gaa yëpp ñu ngi ci yoon ñëw. ñoom Khalifa Wade. Ah. Khalifa Ababacar ma jugee fii moom laa amal rendez-vous. Ah, ah, moom laa jël. tabaara nit ñu baax ñu daal. tabaarakallaahu macha allah bu ñu ko toppee duñu fi jóg. wallaahi wallaahi wallaahi. Yuusu boobu sëñ Maodo si tabaarakallaahu sëñ Babacar Camara. nga mhm. moom sama lépp la. gars yi ñëpp rek. tabaarakallaahu macha allah ñëpp rek. bis baa ngi noonu mbokk yi la 4 novembre lay doon. mbokk yi nag tabaarakallaahu Idrissa Boy Idrissa Boy ak frère am Abdou Salam frère daal <laughs> ñëpp rek mu ngi noonu ndax tabaarakallaahu boo namee jël kenn par kenn fii la ñuy kii te tabaarakallaahu ci waxtu mat na bu yàgg tabaarakallaahu macha allah waaye li ñuy def rek mooy fàttali leen bis bi bi nag la 4 novembre incha allahu taala lay doon fii ci tabarakallahu kër Mawlaay Abdul Aziz Dabbaax incha allahu taala ci teewaayu nag Serigne Moulay si Habib si waaye nag njabootu Cheikh Alhaji Malick bi yëpp incha allahu taala la 4 nag dina neex dina yëngu lool mm-hmm. ki nekk ci wàllu animation bi mooy Alhaji Ngagne Mbaye incha allahu taala bu jàllee nag mooy tabarakallahu oustaz Pape An ñëw bëggal ñëpp ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxuñ nag tabarakallahu kenn nag yéex a ñëw waxuma le nag tabarakallahu a ñëw mbokk bu loolu jàllee la 11 novembre ñu ngi leen di yëgal tabarakallahu takk tàkkusaanu Seydina Issa Laye incha allahu taala bu 9h jotee nag incha allahu taala danañu def jàng alquran ñaanal tabarakallahu nag da ñaan la nag dinañu ñaanal soxna tabarakallahu Khady Kebe Sall dina dinañ ci sargal alxaaji Mamadou Laye Ndir incha allahu taala bu 9h jotee dinañ ci jàng alquran 17h mooy mise en place bi 18h bu leen laay dana ñëw bégal ñëpp tabaarakallahu 19h nag conférence bi ñëw incha allahu taala loolu nag mbokk yi le 11 novembre la fii ci Cambérène incha allahu taala ñu bàyyi ko bàyyi ko xel bu baax a baax le 20 décembre nag ñu yëgal leen nag tabaarakallahu bisu euh, tabaarakallahu dem ba da baax mu baax moom. ak oustaz Malick Mbuub incha allahu taala di bis bu tedd di le 23 décembre bis bi nag bisi soppi yi la bégal yontu yàlla Muhammad rek bégal gars yi ci Seydina Muhammad donc moo tax a jug bis bi tabaarakallahu léegi nag mbokk yi li ñuy def mooy dañuy bàyyi maam Ousmane gannaaw bi mu tàggoo ba pare mu mayeen ñu benn wéy rek ñu jeexalee ko léegi-léegi bismillah layla la maam Khalifa. Babacar Si jël na ndam. sama may borom leeri maam Khalifa. Babacar Si jël na ndam. waa leeral def leen nii ci maam Khalifa. Babacar Si jël na ndam. sama may borom leeri maam Khalifa. sallallahu alayhi wa sallam. billaahi waaw waaw loxo ca kaw nu màggal maam xalifa sidi aboubacar si sidi fage dema ma ca jawab billaahi maam xalifa babakar si ram leer yee baram may yee ñoo ngi ci Leral TV di ko baram leer mamay baram leer maam xalifa babakar si Leral TV aywa yàlla maam xalifa baaba këriñ leeral leeral sama may ba leeral maam xalifa maa ngi nuyu nag sama waa kër sama waa kër maa ngi leen di na la la ke maam xalifa baaba këriñ si del na la la na la la ke maam xalifa baaba këriñ si del yow ko la la ko laal laal na laala ke maam Xalifa sal ko la laal laal na laala ke maam Xalifa ku la xamul la laal laal na laala ke maam Xalifa Babacar Si yow ku la laal sunu maam ku ko laal كرهي جلنا نمرة وإنني قد كنت من أهل داري أهل داري ومسكني بيا لداري أنداري ذاك العدد ذاك العدد لنمرتي داري إذا لقد نفع لغور تل أوار تل لغور تل أوار تل مدد خليفة وما كرسي جلنا لم نرى بقي عسن سيري جمال خليفة وما كرسي جلنا لم سيدي أبو بكر دانا وما كرسي جلنا لم Seydi Abubakar naan nga Seydi Abubakar si baynal masriqi naan nga sunu waaji wal maghribi mbay si naan nga Babakar si jël naa dam alif raasa tànga Babacar si penko ki si jël na ndam mbay si na ki Saalum si jël na ñoom yónnee nanu ndaw ni si jël na ndam la donnu Maodo si tànga Babacar

ardo sim sim eh. nunu kontar Ababakar daan nga Abakar si jëlu naa ndeke yow yaay borom leer imam xalifa billaahi loxo kuy bañ fii ma way bay bañ fii ma way bay nooy def yow génnal réew mi demal ca biti yow baaga soobu ci géej gi ta sax jën boo laal mu ne ba ma ma ma bay ay boram la yóbbab xalifa sama jëp ah yow yaay xalifa saxmet gis nga kuy bañ fii ma way mbay génnal réew mi demal ca biti yow waa nga soobu ci géej gi tasa jëm boolal mu ne ba ma mbaya fi ne ay borom leen maam xalifa nekk yow yaay borom leen maam xalifa jël naa mam samedi baay sëñ bay Mansour bay Mansour xalifa bi kat naaw baay loxo Mansour léegi Mansour xalifa bi kat naaw kooku mooy baay sëñ bay jumaa ji kat yàlla nga ci julle insa allah jumaa ji kat jumaa ji yàlla nga ji kat yàlla nga allah xalifa jumaa ji yal nañ ko dundee ay waay jumaa ji kat yal nga di jullee xalifa bi alaaji Mansour mooy sa baay alaaji Mansour mooy sa baay du peela yow xalifa Babacar Si alaaji Abdou wayal loolu jumaa ji kat ah, ah, amin amin amin amin amin insha allahu taala jumaa ji tabaarakallaahu yàlla na ci julli Serigne Babacar Sy Mansour xalifa bu tedd bi tabarakallahu maa ngi nuyu nag sama waa kër ñu ngi seetaan Ousseynou Niang mu ngi may message léegi ne mu ngi seetaan émission bi mu ngi feggoog nag sama xarit Alxaaji Baye Ndiaye ba léegi tabarakallahu mu ngi mu ngi jël vidéo yi di ma ko yónnee ma nuyu ko bu baax bégge ko ñaanal ko yàlla jàmm ñaan yàlla mu boole ñu defal ñu jàmm ñun ñëpp ci daraje Seydina Muhammad boo ki jeudi bi ni ñëw nag maa ngi invité Muhammad ci bindum Cheikhul Khadim insha allahu taala ñu bàyyi ko xel bu baax a baax alxames ba ca topp nag tabarakallahu ñu invité leen bay bàyyi baabu zikrullah mu ñëw nag bokk ci njabootu Cheikh Ibrahima Baye bu ñëwee rek tabarakallahu béggal ñu ci Baye insha allahu taala mbokk yi bu ko rate keppaaru siiri insha allahu taala bu 17h jotee ak 18h nga moo ànd ceeg tabarakallahu sa mbokk daara Ahmad Dame Niang ñu béggalanteeg yow ci Seydina Muhammad wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf